taw mu bari mi ñu gis jamono ji fii ci Sénégal lan la mën a indee gàllankoor ci um, nawetu ren bi ci bay bi. ah waaw taw na ndox nag moom baax na baax na ci mbay mais ndox mu bari ndox ëpp du ëpp tuuru. Mm-hmm. ëpp gi moom baaxu si. ndax mm-hmm. gàncax gi duñ soxlaa ndox lañ ragale ndox mu bari waaw sans compter que itam bariwuñu engrais yu bari te taw bu taw bi bari day day yóbbu engrais yi da koy lessiver. donc loolu beneen euh, taw bu bari moom vraiment du avantage trop trop. Mhm. taw bu yam daal moo ci gën mais. taw bopp moom mhm. oui euh, li ñu bëggoon déjà ci côté euh, côté boobu noonu mooy xam exactement lan moo waral Sénégal. dañ fiy bay gis nañ ne nit ñi ñi ngi bay ak yooyu mais li ñuy bay du du mat trop pour que nit ñi mën koo mën ko di jëfandikoo ci ni mu waree manaam mu nekk loo xam ne dina dina mën a jariñ ñëpp ci réew mi. Mhm. ñu ngi doon wax autosuffisance en riz. Euh, ne mille sax 2017 lay lay nekk loo xam ne nit ñi dañ ko gis mais ba léegi gis nañ que ni de des na dugub ji nga xam ne ñu ngi koy bay muy bawol muy feneen a feneen daanaka sax yenn kër yi duñ ko mën di dundee trop parce que matal wu leen lan moo waral Sénégal ba léegi am retard boobu noonu ci wàllum euh, agriculture. waaw man loolu am naa ci xalaat boo xam ne nii xëy na acteur laa ci en même temps mais mënu ma ni coupable la <laughs> responsable bi pas coupable. ndax politique moom te les techniciens sont là. le mhm. Sénégal regorge de ressources humaines extrêmement importantes mais nag euh, su ci politique bu bari raxee aussi xam nga politique bari tam day xaw a yàq lu bari politique politicienne moom euh, man dama jàpp dafa am ay yoo xam moo yor mbay mooy base mbay sama gis-gis d'abord une politique agricole claire et bien définie avec des lu leer ba par la maîtrise de l'eau dëkk buy dul taw lu bari boo maîtriser ndox mi sa agriculture dana ah très pauvre il euh, y pas de semence de qualité alors loolu nag boo ko boolee amoo ndox amoo suuf am doole amoo semence yu baax euh, dina jafe trop pour am agriculture bu développé waaw loolu man bokk naa ci li ñu war a xalaat gën a améliorer les sol améliorer les semence euh, maîtriser ndox mi protéger les culture aussi mm-hmm. waaw xam loolu dañ koy négliger mais ci vallée bi par exemple ceeb bi y a presque 30 pour cent de perte mm-hmm. li ñu def pour yokk production bi war nañ ko mën def aussi pour pour wàññi perte yi

sax les ceeb yoo xamante ne c'est le e mais xam nga l'État doit euh, euh, daf ko wax mooy que agriculture ak beneen secteur il faut que l'État précise sa politique cest à mu leeral ne que moom fii la bëgg a dem ak voici les moyens yi nga xam ne moom la ci bëgg a demee mais dafa am li nga xam ne boo xoolee fii bi surtout quand on parle de politique agricole toujours euh, l'État li muy joxe de la main droite mu ngi koy récupérer de la main gauche en quoi faisant au moment u mu ngi subventionné en engrais mu ngi subventionné euh, en, en semence et consort au même moment mu ngi dooleel ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew di indi seen produit fii loolu mooy lan mooy moo tax ma ne il le parce que à travers les taxes douanières et mhm. autres la nga xam ne moom defoon na ko fii daf ko te doyul parce que tamit il faut le dire que ce soit les semences ou bien intrants agricoles yi da ngay dem dugg nii à l'intérieur du Sénégal mhm. nga dem benn village ñu ne la euh, dix trente kilos wala nañ fi indi benn village lëm ñu ne la trente kilos nañ fi indi pour tout le village mhm. mais kooku 30 kilos d'engrais lan la mën a suffire un village qui fait euh, deux 2000 ou 3000 mille am mhm. donc loolu mooy problème bi on n'a pas cette volonté politique de vouloir aller vers l'autosuffisance en euh, euh, alimentaire muy riz muy mil muy leneen ak leneen suñ ko bëggoon daañ ko am parce que un on a la chance d'avoir les terres mhm. on a la chance d'avoir la pluie on a la chance d'avoir le soleil mhm. et on a la chance d'avoir des jeunes c'est-à-dire une population très jeune bi nga xam ne suñ leen mettront dans des conditions mais ce qu'il faut comprendre mooy que l'État n'est pas prêt pour ça xam nga lu ñu pare mooy ñëw fekk par exemple benn Pape nga xam ne c'est un appareil bokk na ci régime bi ñu daggal ko vingt mille ectare wala vingt cinq mille hectares moom muy béy la nga xam ne sénégalais duñ ko consommer dañ koy génne yóbbu ko bitim réew. Mhm. li sénégalais yi waroon lekk. ñu koy jëli jee bitim réew di ko indi donc ça. mais depuis quelques années ñu ngi seetlu aussi ni euh, bay ceeb bi nit ñu bari ñu ngi commencé y des opérateurs économiques yoo xamante ne euh, dañoo jël carrément focalisé wu ci li nga xamante ne mooy. demal dans le delta ni carrément. mais demal dans le delta. Mhm. li ñu fay def bay bi ceeb bi ci gën a baax. Mhm. c' est pas nous qui le je suis désolé c' pas nous qui le man dem naa fa à maintes reprises fekkee naa bu ñuy béyee ba pare. bu ñuy traiter le riz mais je ne pense pas que ce riz là de très bonne qualité que ñun sénégalais yi ñoo koy lekk parce que man li ma non man bii ma gis foofu bii ma gis nga xam ne gis naa ko se de bonne qualité bu ma demee ñi nga xam ne xam naa leen ñi ciy yëngu mhm. bañ may may ax bu ma ñëwee fii bi ñuy jaay fii ne moom c'est le riz qui est qui est qui est qui est cultivé là-bas mhm. c'est pas la même chose nga dem en Anambé wala nga dem un peu partout en Casamance par exemple à Oussouye mhm. ceeb bi ñu fay béy mais soo ko jëlee indi ko fii di lekk mais c'est de la très bonne qualité. mais est-ce que du consommateur ñun am nañu ci part responsable par exemple sama mbokku jigéen am na ñoo xam ne dañu leen naan man ceeb non parfumé bi mënuma ko togg. oui mais d'accord peut-être que ça c'est ça c'est c'est des habitudes culinaires c'est des habitudes de mais en une chose est bépp dëkk bi nga xam ne bëgg nga dugg na dundal sa sa askan nga am suuf am ndox am gàncax am l'essentiel wax fa dëgg yàlla tu vas y parvenir et encore une fois je dis tant que jël mbéy mi parce que en deux ñi naan la am na gox ci Sénégal yi nga xam ne illeer wala kajaanu nañu fay bayee moo lay wan ni que y' a pas cette volonté de développer l' agriculture mooy moo tax suffisance alimentaire boobu muy riz muy leneen moi je suis de ceux qui croient même pas. mais mais mais nag euh, def nañu benn dossier bu ñu doon def fi fële fu mel ni Lagrose par exemple. Mhm. Euh, fu mel ni fi ñuy wax bënn ba ak yeneen i localité yu fa nekk li nga xam ne moom lañ lay gën a wax mooy man dem naa ci benn kër boo xam ne. Mhm. waa ji daf ma ko won ne ma gis nga kër gi ay tool toolu mango la woon wanaat ma yeneen kër yoo xam ne ay toolu lii la beneen bi tool maanaam fu lañ fa doon bay. Mhm. soo xoolee lu ci baree bari li nga xam ne mooy mooy mooy yàq affaire yi mooy ñu dëkk tey jii man fa ma dëkk tey muy muy euh, Kër Thion nga xam ne village du boo xam ne dafa taqaloo xombol mhm. suñ tool yi fi mu nekk nii la cay des du bari mooy lépp transformé nañ ko def ko ay kër léegi finalement nit ñi est-ce que dañuy ñëw ba diggante Thiès ak Dakar fii ñuy wax alab kanji fi bay loolu aussi bon beneen beneen problème boo xam ne problème des terres oui moom assez d'espace des terres cultivables euh, soxna si sur les cent quatre vingt dix mille kilomètres carrés yi nekk senegal ñun dëkkuñu sax sur les cent mille kilomètres carrés ñun ñii lay sénégalais tu t'es concentré à Dakar. non dama ne dëkkuñu sur les cent mille kilomètres carrés sa à dire que donc pour dire que y au moins cinquante pour cent yi nga xam ne de la superficie du Sénégal qui sont des terres cultivables. Mhm. mais kañ nañ ko jox nañu waxante dëgg il faut dire. kañ am ban sénégalais nga fi gis ñu jox ko vingt cinq mille hectares. c'est pas docteur c'est pas euh, le doyen mais toog fee kan nga fi gis demal nga xool les registres cadastrales cadastraux du moins marocain mhm. turc roumain français. ñooñu rek ngay gis ñi leen di daggal vingt cinq mille hectares vingt cinq mille hectares vingt cinq mille hectares mais noonu de Dieu. di ay hectares dañ ko jël ko morcelé ko di ko jaay ah est-ce que aussi c'est les étrangers damay dem de bonne te donne juste un exemple waaw d'accord a étudié ensemble à temps yi nii nii nii may wax ak yow dans le nord de la France mooy Lille agriculteurs yu bëri dañu déserté seeni i terre ak seen i matériel j'ai un ami sénégalais laa la wax yàlla may na ko alal mu ngi fa mais quand il a cherché moom pour sa pour jënd terre yooyu nga xam ne tubaab bi dañ ko bàyyi mais les français le lui ont refusé au motif qu'il n'est pas français alors monsieur Mbacké est-ce que nga foog ni c'est un danger pour un état mu jël li nga xam ne mooy secteur agroalimentaire di ko jox ay étranger euh, waaw soxna Khady man nag je serai un peu plus nuancé que c'est vrai li mu wax li c'est un problème important mais xam nga de dafa day problème bu xaw a holistique dafa bari yeneen yeneen aspect yoo xam ne li mu wax c'est un c'est un cas important euh, mais Sénégal dañu am toujours je pense di opposer ay dafa am toujours ay fractures daal. Mhm. agriculture paysanne agro business euh, wala ñu ni mën nañu ànd ñoom ñaar. Mhm. xam nga man je pense que si c'est bien fait bien raisonné

bi Mimran di ñëw di installé foofu dans les années soixante-dix c'était de très gros risques mhm. yoo xam ne wax dëgg yàlla il les a assumés gagné na ci loo xam ne après kon nag je pense que état yi war a favoriser mhm. ñu ko bëggee opposer am nga ndax ñooñu tam ñooy pousser un peu dans des des pays yoo xam ni c'est l'agro-industrie qui pousse même l'agro-business mhm. qui pousse la petite paysannerie vers le haut ndax dañuy indi améliorer ay technique améliorer ay comme ni ko waxee ñu am industrialisation mécanisation euh, bu boolee ñaar daal mën na ci génn quand même. Mm-hmm. bu bële complètement car surtout que dañuy am ay baux de de de 99 ans yooyu moom wax dëgg yàlla métti na mais nag je pense que mën nañu yéem a boole ñaari favoriser aussi. Mm-hmm. que suñu homme aussi dugg vraiment dans l'agriculture ndax li fi étranger def gis fi aussi. mais ban ban ban politique agricole tey moom la état war a mënee pour euh, euh, lii nga xam ne moom moo nekk un problème parce que nit ñeen ñi problème lañ ko jàppee ndax nekk na benn levier boo xam ne mën nañ cee sukkandiku sax pour développer am réew ñu bari sax jàpp nañ ne presque c'est l'essentiel même. Mm-hmm. loo xam ne moo war a mën a développer am réew. tey mu nekk euh, presque xaw na sori trop ci yi nit ñi gën a privilégié mm-hmm. ndax boo xoolee baykat yi nga xam ne ñoo fiy bayekas néew lu ci bare bari la ñuy bay. Mm-hmm. dañ koy bay pour di ko lekkal seen bopp mais mënuñu ko sax jaayi pour am ci xaalis bu bu tax ñuy wax. beneen bi topp mooy y kii yoo xam ne boo ko fi bayee en général mën na yàqu ci say loxo mango ji nga xam ne ñu ngi koy bay des fois day yàqu yenn yi pour nga conserver ko même problème lay doon da ngay obligé ñu ci bari par exemple ci ñu doon rencontré dañ la naan dañ koy jël dugal ko ci ay conteneur yóbbu ko directement port autonome de Dakar exporté ko muy mango ju mel ni ay kent pour politique agricole pour euh, solutionner yooyu yëpp waaw loolu c'est vrai que politique agricole moom dafa xaw a yàgg ci Sénégal moom xam naa peut-être depuis dans les 1984 avec Bator Diop peut leer bu vraiment xaw na fi gëj am nag de manière cohérente quoi ndax politique aussi dafay cohérence boo amul ci secteur yëpp itam day nekk ay ay kii rek yoo xam ne day xaw a indi indi problème mais jàpp naa li ma wax sànq gis naa temps yi document bu ministère de l'agriculture génne ça me paraît intéressant bu ñu ko defee bu ñu ko appliqué ni ko waxee ah, mm-hmm. jël ay axes prioritaires comme li ñu wax sànq fii les sols l'eau la transformation des produits bon de l'agro-industrie et la petite paysannerie bu amee politique si jafewul daal vraiment Sénégal vraiment y a des compétences qui sont là pour le faire. Mhm. la volonté politique bu amoon moom définir des une politique très claire ci actions yi moo wax jàpp naa ni ça ça peut nous aider à s'en sortir def ci aussi les moyens qu'il faut waaw il faut les moyens ndax assi assister aussi le bon man am na temps doon naa ci amee réflexion. Mhm. pour ñu bàyyi paysan bi à lui-même. ndax dañoo changer vulgarisation rural agricole def ko léegi genre conseil rural loolu lépp xëy na baax na mais war nañ ci gën a mën a la le paysan n'est pas vraiment assisté dans ce mais nag politique bi ñu waxtaan bu ko génnee appliqué ko mhm. y a un nouveau document de politique agricole bu fekkee appliqué ko ndax nag di écrire une chose benn la mais def ko aussi c'est autre chose mais école yi nga xam ne comme tey ci nga jaar nekk ingénieur agronome est-ce que école yooyu noonu fii au Sénégal aussi waruñu leen a gën a ni ISRA ak yeneen yoo xam ne ñi ngi au Sénégal nit ñi di jàng mbay mais lu ci baree bari daanaka ci wàllum privé sax la ñuy mujjee di servir parce que da ngay gis xam ne dañuy ci tool yi la ñuy nekk rek pour pour servir ñi xam ne ñoo yor seen i leen mm. gàncax gi amee problème ñu woo leen ñu fexe ba jéem ko euh, améliorer ak noonu est-ce que école waruñu leen a gën a dooleel aussi ah loolu kay je ne demande pas mieux ndax comme foofu laa nekk c'est un plaidoyer bu ñu laajee ENSA quand même euh, l'occasion d'en parler quand même une école quand d'excellence qui a formé vraiment beaucoup beaucoup d'éminents ingénieurs agronomes au Sénégal fii euh, très compétents et heureusement qu'ils sont assez bien casés parce que bu ñu génnee rek am na ñu leen soxla wax dëgg yàlla jusqu'à présent on a un taux d'insertion assez assez important xëy bu ñu leen a gënoon